alors euh, nan nga gisee les les les différents actes de gouvernement là on a parlé du du, du foncier euh, posé par euh, par l'actuel par l'actuel régime euh, le gouvernement euh, les les les nominations euh, leur impact. man gisaguma dara en tout cas bon militaire la nag aussi il faut le reconnaître honnête du un mois deux mois nga wax gouvernement na la jure résultat yëpp c'est pas possible d'abord il faut marquer les repères et les mesures prises sur la pêche. Oh, oui, oui, oui, bon, ça, c'est encore qu'il n'y a pas de mesure profonde. C'est une publication simplement. Il n'y a pas autre chose. donc, pour moi, c'est très tôt. Mais, tubaab wala fi dañuy wax bu ci na neex bu baaxee xëy xam nga man euh, administrateur civil la bi ñu waxee ni direction générale yi direction général yi dañ koy def appel à candidature j'ai dit on attend de voir. gëmu. Euh, non parce que. lu lu mënul woon nekk la loolu nga jàpp. en tout man jàppoon naa ne mënul nekk. waaw ah, ci réew yu ñu nekk après ñu ne certain la le langage a un peu évolué ñu ne certain encore que même certain man gëm naa ni président de ko falee réew mi moo la jox confiance bu la joxee confiance ñi ngay jox nit ñi pour ñu yéen liggéey la dafa le premier élément de de de, de nomination c'est l'élément confiance parce que nit mën na compétent mën na am xam mais boo ko wóoluwut moom ci boppam yéene wala résultat mais du la indi résultat moo tax ma d'accord ni toujours en politique ceux qui ont gagné doivent pouvoir gouverner parce que c'est sur la base dañu wane Sénégal projet boobu ñuy waxte te nit ñi di di ko jiix ba tey sur la base des hommes qu'ils ont présentés à la nation la nation leur a fait confiance au dé à notre détriment ama nga dañoo gis Bassirou Diomaye Faye gis Ousmane Sonko gis euh, euh, Citizen Lee gis Moustapha Sarré gis Balla Moussa Fofana gis et cetera et cetera comparé ko ak Amadou Ba ak Ablaye Seydou Sow ak ak euh, Fatou Diané ak Thérèse Faye ak Birame Faye ne ñi gëmuma leen ñii laa gëm mais buñ gëmuñu keneen ku dul ñii lañu gëm mais ñooñu buñ ñëwee mais seen nit ak seen ñu am kóolute mais l' essentiel nañu respecter sartu réew mi ci nga xam ne nomination la loolu lay président bi def mais boo nee léegi damay def appel à candidature appel boo defoon tey appel candidature euh, ci ci préfecture yi par exemple man man ou bien gouverneur ñu ne dañuy appel à candidature gouverneur man ma dem poser mais am na am na am na administrateur civil yu bëri nekk euh, Pastef maa leen raw donc forcément maa koy gagné. nga foog ne foofu danaa appliquer li nga xam ne tous les jours moom moom non parce que déjà j'ai une conviction politique moo tax loolu je me disais que ce serait extrêmement difficile de le faire et donc yow bokkuloo ci ñi leen di critiquer non moi euh, par rapport au choix qu'ils ont fait finalement de procéder directement aux nominations c'est d'avoir tenu des engagements qui dont ils étaient sûrs qu'ils ne peuvent pas les tenir mais moi par principe je considère que certains euh, les directions générales les ministères des postes de confiance et la confiance tu ne peux pas l'attribuer à n'importe qui c'est exactement ça loolu laa gëm man nag lu ma gëm laay wax ñoom ñoo waxoon ñoom ñoo waxoon lu ñu gëmul et ils ont vu la réalité et ils verront d'autres réalités parce que au départ ñi ñëw di wax ci yow boo boo faloo ñu ñëw di wax ci yow di faire sa nopp yi pour leur position personnelle bokkul ak la réalité après tu vas te heurter à la réalité des populations et tous ces gens là qui vous racontent des histoires vont fuir Et c'est ce que disait un la la solitude du pouvoir et ça menace tout le man xam naa ci dara parce que ministre laa woon ñi doon daw suma ginnaaw di wax di ma leen tey ñoom ñooy dem fële di wax léegi leen loolu mooy loolu mooy nguur loolu mooy nguur boobu xamul rek doo xam moo tax ma ne lu bëri lu bëri da koy xam. léegi nag bu bees. kon yaa ngi dund la solitude du pouvoir mais c'est la la solitude la perte du pouvoir aussi dafa am. xam nga Sonko dafa ne la solitude du pouvoir bu ne la solitude de règne ou de fait de règne y a la solitude aussi de la perte du pouvoir. waaw mais arrivé xarit yu bëri loolu dañ la réer mais loolu mooy àddina ñëpp lay bàyyi. <laughs> loolu mooy loolu àddina loolu mooy àddina mais li am solo mooy gëm-gëm bi ñu am ci réew mi parce que loolu loolu mooy suñu point fédérateur man yàlla la ma lay wax de su doon suma sago ñi yore nguur gi nañu réussir. parce que loolu mooy intérêt Sénégal. mais et nous tous nous défendons le Sénégal le même Sénégal même si maintenant on a des convictions politiques différentes et may xeex pour que ñoom prochaine élection ma gagné leen ñoom ñuy xeex pour continuer à gouverner le pays. c'est ça la vraie démocratie il faut que nag ñu arrivé ñun à ça. il faut pas qu'en Afrique à chaque fois qu'un régime s'en va. mu nekk sa sa sa spectacle désolant de way diw li parce que rek bëgg nga yaa ngi calculer mandat bi ñëw yaa ngi calculer élection yi ñëw mais loolu gis nga fii élection léegi sénégalais am na lu ñu woon de sénégalais am na lu ñu woon wóor que leur carte là a ok man mën naa la ci jox exemple man ni ku ma waxoon dinaa perte Kaffrine mais dinañ ci ñëw